asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan suñu chaîne digitale bi di Sunugal 24 ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal am mbégte euh, toog ak yéen nar a sekk ak waxtaan waaye waxtaan ak benn mbokki sénégalais bi nga xamante ne jamono ji mu ngi euh, fa xamante ne moo di euh, Canada ndax benn fait bu inédit bu important moom moo ko daal di dal foofu noonu nga xamante ni moom moo di ca Canada xam ngeen ne Sunugal 24 itam fépp fi nga xamante ne sénégalais moo ngi fa di dund jafe-jafe wala dund tolof tolof dañuy. ñëw sa wet euh, masawu la waaye itam may la occasion ngir nga mën a dénoncer la nga xamante ni moom moo laa di daal moo tax it dañuy dem ba fa nga xamante ni moo di euh, Canada nar a sekk ak sunu benn compatriote sénégalais euh, ba nga xamante ne moom moo ngi fa dina expliquer li nga xamante ni moo di situation ba tax tey jii ñu daal di koy contacter ngir mu expliquer sénégalais li nga xamante ni moo ko daal waaye itam jàllale message jëmee ci autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk autorités yi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu daal ngir ñu gën ko daal di mën a taxawu balaa yëf yi euh, féetewoo noo xamante ne daal euh, lu ci gën du ci daal di am donc euh, pour de raisons quand sécuritaire sécuritaires liées à moom situation bi nu ak ak la mu nekkee noonu ci dëkk moo taxee dañuy daal di préserver li nga xamante ni moom moo di identité am donc sëñ bi su fekkee yaa ngi may dégg ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal dama lay bàyyi rek nga teg ñi nga xamante ne ñooy ñi teewlu fii nii ci Sunugal 24. waa asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barak asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu waa Sénégal yëpp. maa mhm. ngi remercier Sunugal 24 euh, torop parce que ñoom tout le temps dañ fi nekkal euh, nit ñi pour euh, effectivement ñu exprimer seen frustration ci yenn affaire ñun ndax dafa am benn situation boo xam ne ñu ngi koy dund fii benn jaay doole man Québec laa nekk quoi province su Québec. Mhm. Canada dafa bëri ay province waa province francophone Québec laa nekk. Mhm. donc euh, sama njaboot euh, euh, ñu ngi dund benn jaay doole depuis mën nañu wax deux mille mhm. léegi damay ñëw ci récemment li sama njaboot dafa wus il y a deux jours. ab doom bu góor mhm. ma assisté ko césarienne bu métti césarienne bu métti métti mhm. après léegi normalement mhm. dimanche bi la war a gis hôpital mais hôpital bi nax nee nañu sama jabar sama jabar du génn ci hôpital bi mm-hmm. tant ak xale bi tànk que lundi demuñu yoon man tamit euh, dootuma duggati ci hôpital bi tant que lundi demuñu yoon d'accord léegi nag lu waral loolu lu waral loolu mooy mm-hmm. euh, en deux mille vingt deux à peu près euh, dafa am ñii di jël xale yi ñuy woy waa DPJ mm-hmm. mooy direction protection jeunesse équivalent France la waa France lañu woy pays man def naa dix ans France. Mhm. léegi nag man sama jabar à la base ba ma ko takkee ça fait dix ans ñuy dund maax moom ci jàmm ak sutura. Mhm. mais dañu amoon problème mu benn sama jabar na danañ fay des fois di dem ak ñëw. Ah, ci belle famille bi. Mhm. léegi léegi après saa bu demee man comme man ci wàllu yoon laa doon liggéey fii ministère de la justice. Mhm. léegi damay dem rek ci juge bi mu ordonné mu ngeen ma samay doom léegi euh, chaque fois damay am gain de cause daal. Mhm. léegi ndax belle famille bi xaw si dugg euh, sonnal sama jabar tawra di ko defal ay chantage de am na sax ñu nekk Sénégal ñoo xam ne heure jotagul pour ma lim. seeni tur euh, mais incha allah rabbi dina dina d'accord léegi léegi si man allo allo yaa may dégg la la la laata ñuy sori est-ce que duñu quand même poser euh, poser li nga xamante ne moo di contexte bi euh, la indi nga nga ñëw fii Sunugal 24 pour dénoncer li nga xamante ni moom mooy moom ngay daal di moom daal di dudd déjà yaa ngi wax ne yaa ngi euh, Canada dëkk bu ñu naan province bu ñu naan Québec ñaata at nga fa nga fa nga fa daal def yàq sa soxna laata problème bi di leen daal bon euh, def nañ fi en fait def onze ans def nañ fi onze ans léegi. Mhm. mais deux mille vingt deux début deux mille vingt deux la ñu affaire yi daal man maa près euh, Canada euh, Canada deux mille onze. Mhm. moom tam defe naa deux mille onze la fi ñëw ak njabootam. Mhm. mais ci liggéeykaay daal daa dajal yaayam ba ma xam ndaw mais maintenant li ma bëgg a wax pour ñëw ci jaay doole bi précisément parce que il faut qu'on aille à l'essentiel mhm. essentiel bi essentiel bi mooy man euh, sama sa ñii ñii di jël xale yi dañ ko proposé woon euh, que sama jabar par exemple ñu vivre séparé wu mën leen y a pas de souci ñu bëggoon ñu signaler ñu benn affaire bi ñu compromission mauvais traitement psychologique man ma bañ léegi ba ma bañee comme ci wàllu yoon naa nekk ñoom ñu ne dañuy dem judiciariser affaire bu waaw léegi ma xeex xeex xeex ba sama jabar euh, sama jabar yor doom yi après léegi man may def di recours may def recours recours ba dem cour le vingt sept février de de Québec Montréal. Mmh. léegi le vingt sept février deux mille vingt quatre laa ko def deux jours après le vingt neuf février ñu daw sàcc samay doom école ak garderie. Mmh. parce que xam nañu ko xale yi. école ak daara dañuy dem sàcc samay doom. mais parce que xam nañu que sama doom mënuñu ko jël seen kër yaay. parce que su woon police ak policier bi ñuy ñëw. d' mais kon kon kon kon da nga bëgg a wax. kon da bëgg wax ne yow. xaaral dañoo dañoo dañoo d' une façon dañoo enlever say doom euh, ci ci ci seen i école. école waaw loolu loolu loolu loolu yàlla moom ma ko seedal ci école lañu dem hmm. jël sama doom góor bi nga xam ne six ans et demi am ñu ci garderie bi am cinq ans hmm. ñu ba pare ci saa si ñu yóbbu leen dans deux ci saa pour di ma jaay doole parce que dama ubbi dossier appel cour d'appel le le le vingt neuf février ñoom ñu dem jëli leen école hmm. ci saa si après léegi ñu imposé ma ñu imposé ma le que le 4 mu ñëwaat ci cour cour Québec mooy cour bu gën a ndaw premier niveau niveau parce que échelon juridique plusieurs échelons la premier niveau première instance premier niveau euh, cour Québec yóbbu na pour mu ñëwaat alors que dossier bi mu ngi cour d'appel nga xam ne moom mooy càppaandaw li balaa ngay dem cour suprême loolu cour suprême la ñu wax léegi Sénégal cour de cassation pour ñu wàccee laat ma jaay ma doole mu ne juge bi écoutez dossier bi ngi cour d'appel yow waruloo entendre dossier bi muy mu cour d'appel ñu woote ñu ne leen dossier bi duñu euh, lu lu war dossier bi cour d'appel cour d'appel moo ko war a déglu ñuy naxas ñu ñu ñu naxasale non non dama dafa mel ni avocatu xale yi euh, notifié wu ko mën ko du dëgg te fii da ngay xam ne ne avocat wu xale yi gouvernement bi moo lay jox avocat wu xale te ñii di jël xale yi tam gouvernement bi la le serpent ne se mord pas la queue ça veut dire que gouvernement bi ñoo bëgg a jël xale yi ba ñoom ñoo lay jox avocat pour xale yow mi en tant que parent mënoo xool sa avocat dans le privé pour dem jël pour dem pour pour dem défendre say doom parce que affaire corruption la ak micmac moo am léegi nag le 4 mars ñuy doodaflu te te man dossier bi ubbi nañ ko ba pare mu mu mu jox si saa si ndogal ni ah dossier bi muy cour d'appel man aw ci sañ seen déglu ko parce que cour d'appel moom gën a kawe muy retard de décision mm-hmm. wala 15 avril presque plus de jours après 15 avril ñu dogale xale yi leen toogaat léegi foofu ba le 15 juin. Mm-hmm. normalement si gàttanu yàlla sama doom yi que juin bii nii ñu war foofu. mais li ma gën a metti mooy sama doom yi sama doom bi juddu démb. ñu ne yaay ji du génn. Mhm. du génn hôpital bi demain la war a génn incha allah. d' accord léegi kon tamit du ma fa duggaat du ma fa waaw. d' accord léegi donc donc problème bi actuellement euh, yow la ak euh, gouvernement canadien wala ñi nga xam ne ñoom la nekk ci province su Québec donc problème bi foofu la situé ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu bëgg a tegee même si ñi nga xamante ne moo di sa njaboot. Euh, baam baamtuwaatal dafa am tuuti. ma ni ma ne donc jamono ji mën na jàpp ne donc problème bi entre yow la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, gouvernement canadien rawatina ñi nga xam ñoo nekk ci province Québec bi nga xam ne dañoo bëgg a teg loxo yow ci sa njaboot tasaare ko jël say doom euh, dénkaane ko ci noo xamante ne yow àndoo ci. exactement problème bi. problème bi man la man la ak sama man sama jabar contre ñoom mm-hmm. mais man sama jabar il faut comprendre une chose man comme dama xam yoon nekk ci système wax naa leen juge man leen man je dans le système comme pour mm-hmm. def naa ñetti at euh, par ministère de la justice palais de la justice xam naa yoon bu baax man mm-hmm. leen lii ak lii du dëgg du yoon jaay doole la léegi ñoom dañoo bëgg comme man comme man nee nañu sama jabar que man man maay seen cas quoi que ñoom sax nee nañu ko d'après li ñu wax sama jabar que ñoom d'accord nañu sax pour peut-être delloo xale yëpp ci seen yaay mhm. mais ni ñu xaw a séparé man li mu leen di sonal yoon moo leen metti ñoom wax nañ ko sama jabar que man li ma xamee li ma xamee yoon yi mënuñu ko terrasser tey jii su ma jëloon avocat dans le privé dañuy dem napp avocat boobu ni ko defal lu wax corrompre ko système bi nii la dafa am corruption je l'assume dafa am corruption wàllum mbuxum sénégalais yi ñu gëm na ni que Sénégal tamit am na justice. wàllum mbuxum am na fii tamit ci wàllum justice bi. parce que juge bi tey jii juge bi tey jii damay taxaw wax ba laajte audience audio audience yi suñ ma yónnee audio audience dañ koy tàgg ba pare wàññi volume bi mu bind lépp ma ne leen da ngeen trafiqué audio yi te gis naa li ma gën a métti mooy ambassade du Sénégal depuis deux mille vingt deux xam na situation bi mu bind madame le ministre anciennement madame le ministre Aïssata Tall Sall ma ne ko madame le ministre s'il vous plaît samay doom parce que dina leen sàcc. ma wax leen mën na leen si le faut sax. pour ngeen def protection diplomatique pour sama doom yi. Mhm. man daal gisuma ci benn résultat benn waay ju baax boo xam ne du euh, ma turam ci ambassade bi lay mhm. moom moo doon ñëw di assister audience par Teams. Mhm. mu ne ma Seydou yow gàcce ngaalaam ñëpp fii dañuy wax gàcce vraiment te gis nga lii nii ah, li may dund di une famille sur deux. une famille sur deux wala une famille sur trois ñun dañuy ñëw dugg sa famille fii ba Sénégal yu bëri dañ di xoxotal dañuy dem école yi di dugg sa famille bëgguñu julliti sa religion ñu koy xeex affaire bi nag Québec la Québec la yem parce que yeneen province anglophone yi du ñu doxalee noonu même même waa Canada Canada mooy fédéral bi dañuy dañuy jippi waa Québec ñu mm-hmm. jéppi waa Québec parce que ñoom gëmuñu dañoo soxari euh, julliti di xeex julliti mm-hmm. te man mii dina wax affaire ya ñii nga xam ne dañu doon ñëw di saytu samay doom mm-hmm. gis naa fi ñoo xam ne comme ay genre euh, kii lañu Euh, waa LGBT. d' accord commission bu jigéen ñoo xam ne ay ay mmh. ko man dem naa ba garde di jëli sama parce que parce que foofu euh, jëli sama. li ma la li ma la bëggoon laaj foofu mooy euh, comme que jamono ji sa jabar accouché na ba mu ngi hôpital jamono ji mu ngi suivre ay soins war nañ ko génne hôpital fekk ñaari fan gën gaa gën gaa bari yow teel nañ laa dem hôpital li ma la bëggoon laaj mooy kon say doom yi nga njëkkoon am ak say soxna fu ñu nekk ndax ñoom dañ cee teg loxo gum am foo xamante ne foofu lañ ko daal di euh, foofu lañ ko daal di dénkaane wala ci sa ay mbokk lañ lañ daal di nekk. non ñoom sama waa sama doom yi ma njëkk am ak sama soxna ñaari doom yi comme ni mu la ko waxee depuis le vingt neuf dañ leen sàcc tasaare ci ñaari famille yoo xam ne xamuñu fu ñu nekk. d'accord nee naa bi nee naa ambassade bi dañuy xool sama euh, ñoom xale yi ci condition yooyu nekk. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla maa ngi xeexal ñoom ba chaque jeudi damay gis sama doom yi am naa vidéo yu bëri mais mënu ma ko tasaare nii par confidentialité. Mm-hmm. te sama sama yaayu doom tam da doon ci bureau bi foofu noonu di gis xale yi. Mhm. xoolal trois heures de temps ngay toog gis xale yi foofu. Mhm. mais man après dama xeexaat gis xale yi normalement chaque samedi léegi dañuy dem yendu ci seen yaay loolu yëpp man maa xeex kenn jàppalewu ma ci. Mhm. waaw ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn jàppalewu ma parce que yàlla dafa ne fa innamal yusri yusra le président euh, euh, OS le président Ousmane Sonko euh, le président Diomaye dañ leen doon jaay doole ci wàllum yoon ñu xeex ko xeex ko mais dañu amoon kattan am ay ay ay am ay gàngooru xaar yu bëri ñu mhm. xeexal ko mhm. gàcce ngaalaama ay maître Ciré Clédor Ly man nag may xeexal sama bopp ci yàlla xam-xam bi ma may te Sénégal yi tam laa ci xeexal parce que dossier bi dama ko bëgg a yóbbu Cour suprême du Canada mhm. comme ça mu am jurisprudence samay wàllum doom comme ça léegi bépp ma ne juge xale boo xam ne nii a génnee benn avis bi loolu moo tax yëpp nee nañ ko ñu jéemal mu am benn jurisprudence boo xam ne dina tax que lii doo ko a amati. mais nag ñi may xeexal dañoo am doole parce que système bi système bi dafa verrouillé ba ci ministère de la justice. Hmm. système bi système bi lay xeexal. ñenn ñi nag nee nañu mënoo xeexal système bi mais man ci ay ñoom Serigne euh, Serigne Touba yëpp suñu maam yu baax ñoom ñëpp dañu xeexal tubaab bi man nag gëm naa ne que yàlla mën na ma génnee ci situation parce que tey nee nañu ma su ma nooyoon bu am na maa sax kër suñu doom seen yaay du leen tegati bët man du ma leen tegati yéen bët léegi léegi alhamdulilah rabbil alamin ah d' accord d' accord en fait euh, dafa am loo xam ne dama la ko dama la ko dama la ko bëgg a laaj ci ci ci ci wàllu woowu lee euh, jamono ji nga ji nga ji nga ji nga ji nga toll nii euh, fii procédure procédure bi ci wàllum yoon toll ndax am nga euh, taxawaay goo xamante ne euh, dana la may nga nga nga mën a jot ci déjà sa sa soxna mu génn hôpital ak euh, parental bi nga xamante ne am ngeen ko ah loolu déjà benn la ndax loolu déjà lu mën a nekk la ndax jamono ji nii sa soxna dana mën a génn hôpital ànd ak ji nga xamante ne moom ngeen moom ngeen am ci wàllum yoon loolu sa xeex la ndax jamono ji am nga yaakaar ne dana mën a antu ak njaboot gi nga xam ne ngeen cee am ndax ci nga nekk nii am nga yaakaar ni dana la dana la a yomb ak euh, ni nga xamante noon nga noonu nga dépendre système bi nga xam ne moom mooy système judiciaire bu bu Québec. bon. Euh, fin bi dégguma ko bu baax li nga mais li ma li ma yaakaar ne mooy ñoom lu ñu wax mooy mm-hmm. sama sama jabar génn hôpital dama la war a gis mais du génn hôpital tant que leen di ñoom dañuñu pour juge bi dogal te am na instant yi amuñu beneen dogal pour def ko mm-hmm. dañ ko séquestré wàllu bi yoon li séquestration de tout code criminel sax da koy da koy daan hôpital bi amul droit téye sama jabar wala téye sama doom mais est-ce que ñu ne nag sama jabar est-ce que est-ce que est-ce que hôpital bi bu doy génn nag sëñ bi sama jabar sëñ bi su ko neexee. allo mën na jël dafa bàyyi xale bi. allo sëñ bi yaa ngi déggam ba ñoom ñu demaat yoon affaire te loolu loolu jaay doole la. parce que ah, amul allo lu tax du ñu bàyyi sama jabar moom mu génn. allo sëñ bi dem ak xale yi ñoom ñu dem yoon ñoom ñu dem yoon lundi. lu tax ñoom du ñu bàyyi sama jabar génn hôpital. sëñ bi yaa ngi déggam allo allo allo. allo waaw maa lay dégg. waaw en fait li ma la bëggoon laaj mooy. hôpital bi comme que moom amul sañ-sañ téye sa jabar est-ce que jàppoo ni ñi nga xamante ni jamono ji ñoom nga nekk ci wàllum xëjanteel ñoom ñoo jox hôpital ndogal loolu lee waaw jox. Mm-hmm. si si ba ñoom ñoo woote foofu ñoom ñoo woote foofu parce que sama jabar daf ma expliquer ne que ñoom dañ koy xoxatal su négocié wulee ak ñoom du jotati ay doomam. moom ndax jigéen la yaay la foog mu négocier ak ñoom parce que di ko ne woon bés boo accouché wax ñu ko da nga accouché moom tam loolu la def parce que tamit su defulee loolu. Hmm. dañ koy jaay doole fii ci dëkk bi léegi nag ñooñu woote ñu ne ah ndaw si léegi bu ñu génn bu ñu génn dimanche na fa toog ba lundi ñoom ñu daw gaaw ci deb juge. Hmm. voilà su fay génn tam na fa bàyyi xale bi ma sama jabar bu mu génn tey bu mu génn parce que su fa amaanee génn la mun nañu foqati doomam ci ginnaaw comme ni ñu defoon sama doomi école ak garderie hmm. mais yow suy def sañ-sañ nga am yoon nga am sañ-sañ am droit lu tax ñëwuñu woon sama kër jabar jël sama doom bu góor ak sama doom bu jigéen lu tax defuñu ko parce que affaire voyou la c'est un banditisme d'État comme ñoom président OS Sonko ni ñu ko doon waxee ci nguur bi passé c'est un banditisme d'État man je leur ai dit j'ai écrit un courriel je leur juge su may taxaw yoon te gis nga tey ji man xam nga man lan laa bëggoon hmm. yéen ñi Sunugal 24 ngeen yéen ay journalistes sénégalais ngeen bëgg assister procès bi duñ duñ leen ko autoriser man autoriser naa leen man papa seen papa ngeen assister procès bi lundi mu ne leen des journalistes sénégalais veulent assister à ce procès assister ko. Hmm. duñ leen ko autoriser te man bëgg naa ngeen assister ngeen xam lu ma fay wax. Hmm. ragalu ma ko tiitu ma ko ambassade yàgg naa assister sama procès ñoo ma gàcce ngaalaama parce que ñëpp dañ ma ne su ma ragaloon. Hmm. tey ci sama doom yi du ma mus tegati ñoom seen euh, bët chaque jeudi alhamdulilah maa leen di gis. bii passé sama doom bu jigéen daf ma ne papa s'il te plaît takk ma ci oto bi. elle a que cinq ans et demi muy waaju jooy. man man maman laa s'il te plaît bu bu jooy lépp mu jeex man je je travaille beaucoup. Mhm. moo tax gisatuma loolu. muy waaj mm-hmm. jouer ko chaque jour du ñu gis papa mais est-ce que man ndax gis nga ban waaw. Mm-hmm. est-ce que jàppoon ni ndax amul benn euh, xeetu loo bi entre guillemets euh, boo xamante ne euh, moom moo la bëgg a tàkkale kook seen doom parce que sànq yaa ngi yaa ngi wax naan bëri na ay sénégalais waaye bëri na itam ay nit ñuul yi nga xamante ne ñoo ngi dund situation bi nga xamante ne yaa ngi koy dund. c'était comme si dafa am ñoo xam ne daal dañoo làkkatu ci ginnaaw justice ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum xale yi ngir jéem a tàkk tàqalik ñi nga xamante ne euh, dañoo sosoo fii Afrique yore dér gu ñuul ñëw foofu noonu ngi daan seen doole ànd ak seen njaboot ngir ñu mën leen a yóbbu ci ñoom ci seen ci euh, yenn yenn gëm-gëm. man gëm naa ne euh, dama ciy jaar ci dëgg bi gëm naa ne lobby góor jigéen am na ci. Ah, déet waay. ay ay waa non xam xam lu tax ma wax la. li nga wax li li li nga li nga wax garaaw la de. damay non damay dem damay dem damay ba ci détail bi. waaw parce que man nii ñi fi doon ñëw ci intervenante yi. Mhm. gis naa kenn koo xam ne genre transgenre la jigéen bu bu sopp euh, nekk jigéen góor. Mhm. taxaw na fii la euh, di samay doom. Mhm. su ma demee foofu di leen seetlu gis naa fa ay jigéen ay góor yoo xam ne waram ñaari tour nañu. dama lay wax benn affaire benn jour laa dem jëli dem jëli samay doom. garderie garderie bi foofu noonu. ba ma demee ci garderie bi foofu may boobu ñoom ñu ngi woon sama dossier de mais jëlee ku ñu woon ñun ñoo yoroon xale yi léegi may solo sama doom góor rek parce que alxuraanu karim ma gis benn waay xaw ma ma góor la xaw ma mu xool ma fas fas kanamam xool ma man fas kanamam. Hmm. comme si daf ma ciblé man maa doon solo sama doom sur le attention sama garde ko jigéen kii nii sama garde di doom bii. dirigeante bi directrice bu fa nekkoon noonu ah. Mhm. benn genre euh, jigéen bu soppaliku nekk góor la man dama leen bind dama leen bind email man li ma lay wax dama ko assume mhm. ma ne nii directrice bi xaw ma yéen da ngeen am lobby caché xaw ma lan mais gis nga sama doom yi di ngeen ko goxi par A ou par B. dem leen sàcc doomu keneen mais pas man man loolu moom mu sauvé ba léegi ah bind naa ko jugé wax ko man ko dafa am benn lobby caché boo xam. Mhm. des des des féministes voyous comme des lobby des forces occultes di bëgg a sàcc sama doom. d'accord gis nga tey jii da ngay tàpp da ngay tàpp Google DPJ nga def DPJ pédophilie nga def DPJ. parce que euh, mensonge nga def DPJ nga xool. parce que temps yi passé temps yi passé ñu ngi fay dégg benn sëñ bi nga baal ma ma ne temps yi passé ñoo ngi fay euh, ñoo ngi fay dégg benn scandale mu di ab waay soo xamante ne comme ni nga ko waxee rek dañ ko dégg dénk njabootu mu mu mu sàq ndaw ya faf exactement au fait effectivement dañ di dénk ay doom dañ leen di dénk ay doom après sàkkaayu doom lañ koy def mhm. te gis nga ah fii pédophilie bi dama lay wax historique bi Québec bi nu mu demee depuis les années quatre vingt dafa mhm. amoon une prolifération de pédophiles mhm. boo xam ne des fois da gis ñoo xam ne dañuy seen doom day dem day dem kii rek ñu jàppaleen leen day dem euh, day dem fenn boutique la ñu sàcc ba léegi fédéral bi mu ngi ci xeex fédéral bi mu ci def euh, xeex yu am solo m ñoom mm-hmm. système d' enseignement bi dafa am ay pédophiles yu ci raf ci mm-hmm. affiché xale yi mm-hmm. parce que ñoom la moo indi loolu jamono jamono colonisation bi ñoom bëri wuñu woon fii dégg naa ci jigéen ñi euh, bëri wuñu woon léegi après entre ñoom dañ doon ci famille loolu moo indi pédophilie boobu dañoo feebar am na ñoo xam ne dañuy jël xale yi naan famille takkay nit ñi entre parenthèses dañuy dimbali ay xale mais dañ leen di sàq am na ñoo xam ne ay cas yoo xam ne sax dañ dañ leen yar famille d'accueil ba dix-huit ans après ñu sàqu leen léegi léegi dañuy témoigner à visage découvert ñuy ñu ñuy porter plainte y yoo xam ne am na benn vidéo boo xam ne sax mën naa leen ko yóbbu yónni internet yi seetaan ko benn waaye boo xam ne dafa xeex pendant dix ans ak ay famille yoo xam ne ñuy commencé euh, euh, ñuy commencé quoi donc système bi nee naa la li muy demee je l'assume mhm. man wax naa leen ko juge de première instance Québec dafa falsifié PV bi wax lu nekk ko mhm. ba mu ko falsifié ma dem cour supérieure cour supérieure nee ma mais monsieur Dia vous êtes la victime dans tout ça entendez-vous ma ne leen man man man entendre euh, ma noppi quoi comme si jëloon bëgguma jël entendre mu ne ma dossier bi ça va me prendre au trois au moins trois quatre mois ma joxe daan mhm. à ma grande surprise la la la dialogue le 20 février mu joxe mu rejeté sama demande ma dem cour d' appel cour d' appel bi ñu la le vingt le le vingt sept février deux mhm. cour d' appel le vingt deux mars. entre temps entre temps ba may jaar cour d' appel le vingt deux mars deux mille sama doom yóbbu leen ah pour pour tenir en otage seen comme ça su cour d'appel du mën a wax ndeysaan mm-hmm. parce que sama yaay seen yaay du mën a wax dafay jooy parce que xam na ne ay doomam ñële sàcc nañ ko ba pare mënu mm-hmm. wax défendre juge bi juge cour d'appel bi ah mm-hmm. juge cour d'appel man kay sama rejet mu ne cour supérieure bi ine ine le père a identifié une panoplie d'erreurs que le juge de la cour supérieure a fait mu ne ko man le père a bëri bëri yoo xam ne. Hmm. cour euh, cour supérieure bi da ko waroon dindi. d' accord mais mais mais non cour d' appel. allo. ñu ngi lay acca acca acca wóyal la. waaw waaw comme cour d'appel ñoom comme cour d'appel ñoom du ñu du ñu du ñu wàllum yoon rek euh, erreur ki erreur de droit rek ñu ñuy xool. Mhm. donc ñu ne non dañuy rejeter parce que erreur de droit rek ñu ñuy xool. erreur de fait yi cour supérieure bi defoon moom moo ko waroon moom moo moom moo ko waroon kase. Mhm. donc léegi ça veut dire que ne mafia bi nan lay demee daf lay expliquer exactement ni mu demee wàllum jël toog. nguuru Québec bi mooy def ay ay ay ay jéem a ay jéem def ay ay ay ay falsification cour hmm. mu mu mu confirmer ko mais soo demee cour d'appel da ah, parce que jàll na ci yoon mais hmm. man léegi maintenant sama seul yaakaar hmm. suprême parce que cour suprême lépp nga xam ne erreur de fait la wala erreur de mun na ko daane ça veut dire que suprême tey soo amee yaakaar ñu déglu ma mun mun na annuler lépp luñ fi dog ci dogal ko léegi mhm. te cour suprême su ma dégloo sax procureur général du Canada day ñëw ànd ak man mhm. day ñëw ànd ak man mhm. te loolu am naa ba le vingt deux mai instant yi pour déposer ko am naa ba le vingt deux mai pour déposer ko mais incha allah rabi dinaa ko déposer d'accord mais maintenant pour conclure ci benn affaire bu am importance jugement bi nga xam ne dafa ne dafay séparer ma sama jabar ak sama doom mu dëkk séparément jugement boobu noonu le 9 bii lay jeex. Mhm. ça veut dire que le 9 juin 2023 dañ ko jëloon juge bi nee na un an rek lay def. Mhm. pour mu jeex donc le 9 juin 2024 bii. Euh, suñ ko renouvelé damay jotaat sama doom mais maintenant. Mhm. ils ont tout fait pour jéem a pour jéem a renouveler jugement boobu noonu illégalement. mën na leen tey doo leen ko fi doo ko fi renouveler tey ak ëllëg léegi instant yi ci tànku renouvellement illégal million moom boobu nañu nekk instant mhm. parce que le 9 juin 2024 dafa war a jeex te instant yi nii am naa benn dossier boo xam ne mhm. euh, cour d'appel ak ñoom pour enlèvement d'enfant parce que mhm. déposé naa te dañu enlever sama doom bu góor bi ak sama doom bu jigéen bi ñu yóbbu ko cour supérieure ñu rejeté ko mais cour d'appel laa ci te kilifa patriotisme nañu ñëw taxaw tribunal nañu ñëw su leen ñu ñëw taxaw déglu lu may wax mhm. awma lu ma ciy ragal journaliste bépp bi nga xam ne dañ ci bëgg a kii mhm. euh, euh, contacté naa ci ay journaliste yu am yu am euh, Euh, yu ñu dégg Sénégal yoo xam ne xeexoon nañ ci nguur du ma lim seen tur mm-hmm. nee nañu mënuñu ci dara mais mënuñu ci dara mais jamono yu ñu doon xeex tam ci nguur boobu ñu def tam jamono ji tamit ñu ñëw taxaw ñu ñëw wax wala ñu ñëw déglu ma tribunal ku ci mm-hmm. mënul wax na nga ñëw déglu ma tribunal xam ne man ragaluma ci tey ragaluma ci d'accord d'accord maintenant mm-hmm. dinaa dinaa wax dinaa wax tam pour conclure. Hmm. rôle belle famille bi dinaa ci ñëw parce que man tey sama jabar sëñ bi nag sëñ bi comme que comme comme que euh, da ngay daanu sa benn fee rek mun ñu quand euh, euh, dugg foo xamante day day day day xaw a compliqué man fi ma bëggoon ñu jeexalee. laaj bi rek wala wala sax li nga xam ne moom mooy fee bi nga bëggoon doon sa mooy ban problème bu sérieux nga amoon amoon ak sa jabar ba yëf yi daal di mën a àgg fii nii parce que tamit ci investigation yi ndaw yi nga xam ne nañ ko def itam ñi nga xam ne ñoom ñooy. Euh, protéger xale yi foofu mënuñu tëb rek dugg ci seen couple noonu te fekk yàgg sa soxna amoo leen benn xar ma yàlla euh, ba ba ba yoon am ci ndax euh, amoo leen benn problème bu sérieux boo xamante ne moo leen boolewee den ñaar ba yëf yi mën a mën a mën a mën a mën a agsi fii. non non amuñu problème bu sérieux ba mu yëf yi mën a am fii nee naa la nee naa la ca njalbeen li may wax dama koy assumer j'ai des documents juridiques. Mhm. ah naa la au départ sama jabar ah léegi moom mu ne papam moo ko doon poussé pour ñu démocratie ñëw. d'accord papam te papam boobu bëgg a tas séeram. Mhm. tey jii moom moo tas séy sama cousine jabar bii nga xam ne dafa dafa marié dafa mario wu actuellement benn ministre boo xam ne mu ngi ci gouvernement instant président Sonko. Mhm. li mu lay wax ni da nga koy dégg bu baax. man sama sama sama beau moom moo tas séyu ku euh, sama cousine jabar bii nga xam ne. kenn ci si ministre président Ousmane Sonko loolu moo tax sama sama papa jabar moo tax donc il faut comprendre une problème de belle famille boobu sama jabar ba mu daan dem man dama daan protéger sama doom mm-hmm. ubbi dossier cour supérieure ñu ordonné sama doom ñëw mm-hmm. sama jabar nag toog na wax ñooñu mu ne leen man sama papa moo ma doon poussé may dem ak mm-hmm. sama rakku papa bi nga xam ne dafa nekk Sénégal chirurgien bu mag la Sénégal chirurgien urologue bu nekk Sénégal heure lii mu tuur su jotee dina jot dama expliqué sëram tamit sëram tamit ñëw di faral Pape Samba Ndaw si di ñëw tribunal di fa di fa di fa wax du n'importe quoi ak mmh. léegi nag sëram boobu tey ji ah même lundi bii sax dañoo nekk xóot max moom parce que dama ko laaj diffamation euh, de bëgguma wax turam mhm. parce que dafa nekk ci yoon diffamation attente à ma pour cent mille dollars laa ko mhm. laaj nee naa ko na indi yëpp di def loolu dinaa la expliquer benn affaire mhm. sama benn xarit boo xam ne meilleur ami Sénégal mën naa ko may sama sœur boobu sœur boobu noonu sama sœuru jabar mën naa ko may te ginnaaw yàlla mën maa tax mu ñëw Canada comprendre te am na ay xarit yoo xam ne dañuy tàmm mbaalu ci télé Sénégal yi di wax te ñoom ils sont impliqués dans le dossier. d'accord di wax di rëy sa nag di ñëw Canada di wax ay projet di wax te ñoom ñoo bon seetaan ni ñuy jëlee sama doom te dinaa lim ñoom ñëpp seen tur. incha allah ñoom xam nañu bu baax aw ma lu ma ci. d'accord duma lu ma ci da ko Sénégal 24 mm. suivre dossier bi képp koo xam ne Québec nga nekk fii nii ah. Mm-hmm. bëgg bëgg a suivre dana ñëw lundi. kii euh, euh, euh, pare de justice de Longueuil. d'accord palais de justice de Longueuil soo ko tapee. boulevard Jacques Cartier Est le 11 11 ku fi ñëw ni nga ñëw déglu nga ne leen di ngeen bëgg a assister audience bi nga xool daal dinañ leen bàyyi. fii ñëpp après di leen wax kan mooy kan. merci dinaa indi te dama lay expliquer benn affaire pour conclure. man sama jabar dafa njëkkoon am doom en 2015 doom bu jigéen. naroon doom bu jigéen nar a jur. papam bii nga xam ne sama goro bi mu yàqaloo ko biir mu euh, sa sama mu poussé ko pour mu dem yàq ambam hmm. allo. oui oui ñu ngi lay dégg baax baax. mu poussé ko audio attestation médicale boobu yor naa ko audio boobu yor naa ko. mu ne papam na moo ko poussé pour mu yàq bi tey ba mu yàqee boobu ndeysaan dafa naroon génn àdduna léegi ñu bëgg amaat doom ñu bëgg amaat doom ñu dem ci ay imam ñaan ñu ñaanal. ci la ko yàlla jàppale ñu amaat bant yii di kii li ma ciy wax na nee naa la am na xarit yoo xam ne ñu ngi télé di di di di wax ay projet Canada di dem ko ñëw ñu leen di wax ci télé yëpp yëpp leen xam Sénégal yi rëy seen làmmiñ te ñoom ñoo tax ñoo dox tamit dina duñu def ba sama jabar tamit jël samay doom te ñëw ni xam nañ ko mais li ma wax dama koy assumer hmm. ku ci bëgg a dégg dëkk maa ngi woo autorité sénégalaise yëpp dañu ñëw connecté wu audience bi ñu ñu def audience bi live in direct aw ma du ma wax ci ay article de loi yu leer nañ wax ci dëgg bi ñoom xam nañ affaire bi na la diplomatie décomplexée pressé fu ñuy wax. Mhm. tey chinois yi su ñu jëlee seen seen seen doomu réew. Mhm. dañ leen di dañ leen di assister. Mhm. tey jii nañu gëm suñu bopp. nañu gëm suñu bopp gisoo fi Sénégal ñuy jël benn doomu tubaab di ko yóbbu ci ay sénégalais di leen di tas. fii gisoo fi benn doomu québécois ñuy jël di leen di yóbbu di leen séparer di leen yóbbu ci sénégalais. ñaari naka rakk mu ndaw yi six ans et demi et cinq ans et demi ñoom ñu def ba ñoom ñu leen di tas. lu ñu def ñoom lu ñu def ñaar yooyu. ñoo xam ne ñooy juddandoo lu ñu def ñoom ñaar mag a rakk yooyu ñu leen di tas du jaay doole la. mën na aw ma ci dara lu mu ci. d'accord merci voilà. merci beaucoup merci waa Sunugal 24 ah. euh, ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di la itam ci li nga xamante ni moom moo la dal espérons que ñi nga xam ne itam euh, ñooy suñu autorité yi nga xam ne ñoo nekk euh, foofu noonu ca Canada rawatina fi nga xamante ni moo di ca Québec danañ la taxaw ba jafe yi nga xamante ne amee nga ko ak yoonub Canada ci sa wàllum njaboot googu lay mën a saafara bu baax baax donc mbokk yi ñoo ko déggandoo dénonciation yi nga xam ne sunu mbokk sénégalais nekk foofu noonu ca Canada fi nga xamante ni moo di ca Québec mu ngi ko doon dund xamante ne euh, noonu la ko waa yoon wa daal di euh, tegee loxo jël ay doomam yóbbu leen ci ay euh, famille dëkk yu différent itam soxnaam si nga xamante ne parental bu tooy xepp la daal di am ñu téye ko ci l'hôpital force jëkkëram ji nga xam ne moo doon dénoncé ci télé bi moo am accès fi nga xam ne moo di ci hôpital bi waaye itam jabaram ak doomam bañ a génn foofu nga xam ne moo di ci hôpital bi donc lii nag war na am njeexantal ci wàllum yoon altine gi nga xam ne mën nañ jëm woote na askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo di di compatriote sénégalais nekk foofu noonu ñu daal di koy dem dooleel ci xeex wi nga xamante ne moom la daal di euh, nekk dégg nañu itam mu daal di wax ne dafa am ay lobby yi nga xamante ne ay lobby euh, borom ñaari tuñ la ñu nekk foofu yi nga xamante ne daal euh, jàpp na ne seen loxo setul ci mbir mi donc di ñaan ñi nga xam ne itam mooy suñu ay autorité vraiment ñu gën ko mën a taxawu ci combat boobu nga xamante ne ci la daal di nekk ñu ñi nag ñoo leen di jaajëfal di leen sant ak gërëm yi ñi nga xam ne ñoo doon teewlu élément bi di leen jox dig daje ba beneen wasalaam